magalu soxna mu Muminatu Mbàkke niki démb ay kilifa diine yu takku ñoo woon teewee ko ñu bokk ci njobootam taalibe murid yi ak soppe yi itam kenn demul ñu des am na nag ay seede yu takku yu nga xamante ni indi nañ ko jëmale ko eh, ci kii nga xamante ni rek dafa liggéey bu baax ci wàllum lislaam xew-xew bi nag njëriñ bu rëy la woon itam eh, ci ñi nga xamante ni ay kilifa lañ waaye itam ñi bokk ci njobootu soxna mu minatu Mbacke ñu dikk ci dund ak jaar-jaaru soxna si nga xamante ni dafa bokkoon ci njobootu Cheikh Ahmadou Bamba suñu sukkandikoo ci kàddu El Hadji Maodo Cissé soxna minatu Mbacke doonoon na koo xamante ni dafa liggéeyal lislaam ci ni nga xamante ni rek noonu la doon jàngalee waaye itam ni mu doon tàggatee Serigne Moustapha Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadr eh, ci wàllam dafa delloo njukkal eh, Cheikh Ahmadou Bamba ci ni nga xamante ni rek noonu la tàggatee soxna Muminatu Mbàkke eh, Serigne Mokhtar Bousso moom doon wax ci kaddoog Serigne Mamouna Bousso nekk imam ci grande mosquée bu Touba dafa andi ay seede ci mission bi nga xamante ni soxna Muminatu Mbacke doonoon na ko doxal ci wàllum njàngum alquran waaye itam ci wàllum suuna loolu nag may ko mu doon royukaay ci génération yu bëri rawatina nag ay turandoom. Sëriñ Xaadim Mbacke dafa ñëwoon teewal si njobootu maam Thierno Birahim Mbacke bu Daaru Muxti mu ne soxna Muminatu Mbacke doonoon na ku nga xamante ni ku déggoon digal la. ci njeexantal bi nag def nañ ay ñaan yu am solo ki ko doon def moo di Serigne Moustapha Mbacké ibnu sëriñ abdul Ahad ñaan yooyu mu jëmale ko ci soxna Gaddu Bousso bi nga xamante ni moom moo fi toogal soxna Muminatu Mbacké jërëjëfal nañ ko nag ci liggéey bi nga xamante ni rek moo ngi koy def ndax soxna Muminatu Mbacké waaye itam ngir Serigne tuuba